fan yee nag bi ma fi defee benn appel d'offre alaaji. waaw euh, am na cent vingt quatre membre mooy ci jéeg jooju. waaw diggante cinquante soixante ans man wër la ma sama PV yi may wër moo gën. cent vingt quatre membres. ñooñu alaaji moom xam nga ne moom di nga ci am lu ëpp ñaari téeméer. wuy ma damay trier. te même même ay veuve bëgg nga. waaw bu mu nekk cas social ak tey nag bu mu nekk wóof bu jëkkër ju gàtt fan. ah jëkkër ju gàtt fan bëggoo ko. ah <laughs> kay wóof boo xam ne xëy na. ok waaye boobu boo xam ne ICM def la ëpp ñaar fukki at ak ok waaw waaw waaw waaw kon baax waaw PV yi may wër wër tamit nga wërle ma ko yi may wër yan la dafa am ay PV yi may wër ci biir dëkk bi ay procès-verbaux dinaa la tegal après alaaj wax ma ma ko non non non yow dama la koy wax léegi nga wax ci rajo bàyyil noonu rek mu seet ah nañ ko wax waay non non non la ko kii dinaa ko wër dinaa la tegal expliqué la hmm. da koy tegal kaar bi waaw PV ay procès-verbaux naa ni moom ab procès verbal alaaji boo xam ne da koo jël nga ne ko da nga koy euh, da nga koy tere journaliste. ah lu daa maa nekk. bu jotul procès verbal tamit daal xam naa ni bu demee police moom fee divers yi moom ak gendarmerie. dana ca am yu bëree bëri. waaw foofu nag laa yem xaayaar ku dégg séeréer. procès verbal yoo xam ne nekkul sax ay ay ay fait divers laa la wax ji nekkul ay fait divers. waaw moom la ñuy xëy ko dajj ci mbedd mi. dagg ci mbedd mi kay. procès verbal ñoom Karim Wade yi Karim yi nekkul nekkul nekkul woon ci mbedd mi. ah procès verbal boobu Khalifa Sall yi nekkuloon ci mbedd. réunion palais sax. réunion réunion palais la. Ah, bu Adama Gaye ba nag. ah. yi nekk nekkul ci mbedd bi. nga ne yow journaliste yow doy doy doy doy enquête enquête enquête ba xam ne waa Benno Bokk Yaakaar bi ñu fatoo def huis clos. ah dëgg yàlla. gars yi huis clos la ñu def de. la conférence des leaders alaaji. waaw ak tonton Macky. Mhm. huis clos. xëy lépp na ci mbedd mi ba mu jóge Macky daa woote. quest lu xew boo tax léegi day nëbbatu ay nitam. gisoo bi muy fal Mburoog Sow Idriss Seck. waaw ñëpp ci plateau yi. que niiru la xew. personne même bi muy woo mini xam nga lan la wax Mimi. Hmm? sa poste dama ko soxla. ah kooku ne ko amul benn problème monsieur le président waaye ba tey waxu ko ne ko Idy lay hmm. ku weddi lii may wax na woo Mimi Touré léegi day muutuwaale léppam. dëgg parce que xam na ne moom. pale ba ay nettalikat ñoo fa ay nettalikat. déggoo bëri dangereux <laughs> dégg loolu man nag du ma nekk comme journaliste alaaji. te waa Bennoo Bokk Yaakaar. di préparer ay élection alaaji. Hmm. ma bëgg a xam ñi ni nu ñu doxalee ak mbir mi kañ la. xëy ne ko dajj dóor ko ci inuk sama tribune bu riis bi. Hmm. Hmm. ñu naan ma boo ne ko fi dajj dinañ leen tëj ci kaso bi. tëj ah. dama naan ko ci dajj. tëj. léeg-léeg gis ay na waaw waaw yi waaw loolu droit li ko liir. liir yéen ngeen di yor liir. xanaa PV tey la araam. ah wax dëgg yàlla dama ne xanaa PV tey la araam laa wax la ab avocat daan toog ci ab ab débat wax ju jég turu Sidi Mouhamed lu man may avocat diw sax nag léegi mane ne turu Sidi Mouhamed Mbaye ku ko génnee ah waaw waay man ko génne man laa daan jég-jég toog ci débat télé jég-jég ne man may avocat manque sa par la force xanaa avocat yi amuñu ordre buy contrôler am règlement ah. intérieur ci biir ah waaw kay kii nee na Tëngéej FC le 23 février lay football ak Al Ahli. Al Ahli waaw. Al Ahli xanaa retour ba la. waaw alaay kooku il faut ñëpp dem jàpp ca. mais Platini moom bu bu bu bu man nag man nag jaraaf laa faral nag. man maa ngi jaraaf léegi nag man Tëngéej Tëngéej ba fa léegi nag alaaji nekkee laa ko doon supporté. léegi nag alaaji. Hmm. ak ligue bi moom. léegi nag alaaji. yaa nañu qualifié ñëpp. Euh, dose bi. Hmm. dose bi. waaw suñu diggante ak waa Chine. waaw euh, altine. dafa am ay bagages su ma ciy enquête waaw altine incha allah. Hmm. Euh, danaa jéem a xool. don la wala wala jënd la. waaw parce que journal officiel bii di la Soleil. Mhm. dafa ne. ñaari milliards ak ñaari téeméeri millions. waaw muy trois millions trois cent d'euros. Mhm. ñun moom lañ jëndee suñu ñaq yi Macky Sall jot barki démb. Mhm. dëgg la wala dëgg. te Abdoulaye Diouf Sarr. daa publier woon ci page am. Mhm. ne ñaari téeméeri junni ci ay doses. waa Chine dañ ñu koo may. Mhm. ñun nag denc nañu deux milliards deux cent millions. dégg yu ñuy lambee lan ñu defoon nag ci arène nationale ba ba rëcc ca. nañu trente milliards et quelque lañ ko def. Mhm. ñu xëy chinois yi def fa seen drapeau. ah ne don de la république populaire de Chine. Chine maanaam dañu koo may. te ba léegi réew mi li ñu leen gëmloo mooy arène nationale bii alaaji ñun ñoo ko tabax. li kenn xamul lan la. xin ping ci dikk fi ñu dem inauguré ko. Hmm. ñu ne dañu koo may te ñoom malgré loolu chinois yi wax yëpp ñoom gëm gëmloon nañ ñu ba tey ne suñu alalu réew jël nañ ca fanweeri milliards. <laughs> te kat waa mu sedd. Hmm. ñoom dossier bu ne bu xëy ñett arrangé wu leen ñu génnee beneen dossier. je jure li kenn xamul lan la. ñu toog seen kër naan ñii ay opposant lañ nag yéen a parce que lii la fi waa kër Ablaye doon def. li kenn ñu wax ñu ne rajo bi Zik FM danoo contre Ablaye yéen a ñu doon tagg nag. waaw tey waa kër ab Ablaye suñuy xarit. Mm-hmm. déggoo ma de. Mm-hmm. tey na ngeen a ñuy xarab bu leen neexee te ñii nekk fii gargar yi alaaji. Mm-hmm. ba ñu toog buñ toogee nga xam ne lépp dëgg la. waaw gis nga ñii nii gars yi naan non ñii il roule pour diw. il roule pour x. gis nga la x laa ba mu dikk. buy falu defal ñu defaat ñu noonu. boo boo x di falu di ñu def y. waaw leer laa la wax. ndokk lu leer. ndokk ah, ah non à moins que nga dem mburoog soow. soo mburoog soowee ak ñoom moom yaay seen waay. ko sax. waaye boo toogee fi nga toog sa ligne éditoriale bi nga ne ko ngëpp. Ah. ñappaakoto ko téye ko ba koo ah. baax. Ah. nekk ak le peuple ñu noonu ak yow. maa la ko léegi nag lii nag ñuy wax nag ci ci ci deux milliards. deux cent yii danañu ko leeral. <laughs> na uh-huh. kooku moom. yéen bàyyi leen ba altine. ba ñu uh-huh. ba ñu def enquête ba wàcc. incha allah. bàyyi leen rek réew mi moom. fi nekk uh-huh. nii moom gëstu la laaj. waaw waaw gëstu la laaj. waaw fot fotokat ba gëstu dëgg dëgg dëgg dëgg xaali ga ba nekkoon ka daan foto Ablaye Wade dum su xaali ga moom xaali waaw fotokat ba moo daan foto Ablaye Wade Abdoulaye Wade moom Moussa woo Bougane ba pale da ñëpp nee nañu ma da ngeen maa contre dañu maa bañ non non non woon sax di ko apprécier ne ko léew léeg léeg waaw photographe baa daggee ca làng ga. saabu ko monsieur le président ñii booy lim say noon boole leen ci. ah waaw boobu bugaan. bugaan xibu ko introduire ci Ablaye Wade bugaan ni ko sa nangam tànn. déggoo ma de. mooy moom xam ne nañ bugaan ak gën a may xeex. xam nga li ma la waaye du ko songu ci kanam président kilifa la. dégg nga loolu. dégg nga loolu. ana kooka léegi. mbir ma foofu la mbir ma foofu la jolle. ana photo léegi ñii. leer na xaalis léegi ñii it. appareil bi yëpp dañoo fànn. dem na Gabon. <laughs> non non eh bàyyi jaww xaalis sama xarit la. <laughs> appareil bi laaj photo bi dañoo fànn. duñ laaj téléphone nga moom eh, tamit. alaaj ah. ñoom ñëpp léegi samay xarit lañ. waaw ah. xanaa déggoo ma la ñoom ñëpp samay xarit lañ. ah jamono jooja. la bugaan nekkoon seen noonu. léegi jamono ji bugaan xaritu xaali gamoo la. non ah, Ali Faye la. ah Ali Faye la. ah Ali Faye. Ali Faye appareil bi dañoo fànn. <laughs> léegi de jamono jooju classique yi bàyyi taala la moom la am bàyyi bàyyi taala mbay nag ñu pa bi ñu photo bi ñuy xale bi ñu ah, jàng bi ñu ah, jàng pa bi déggal na bu mi li may wax lañ jëkk gis naan ma amet bàyyil mu sedd wóorul waa réew mi li Barthélémy Dias nan fay nan fay bu ñu bu ñu ñu ah? tudd Ali Fay Ali Fay maanaam photo Ablaye Wade xam nga de ci la amee woon audience am accepté la ni mu ko neexee bu ko ko fa neex bu duggee mu saaga daan photo di moo daan eh mooy une minute. yàlla yàlla doon daan ci réew mi dégg nga loolu. Ah. saaga bugaan ci kanam Ablaye ndax bëgg bugaan xeex ak moom. pour confirmer Abdoulaye Wade ni ko kii sa noon la. sa noon la jaral nga maa xeex jaral nga maa xuloo. déedéet bëgg woon Abdoulaye ni ko kii sa noon la ba man mi ko saaga sax gis nga mënut a téye boppam sa kanam. waaw loolu jaral ko xeex jaral na ko xuloo. corona gaa ngi ñëw. li anamu leen am na man. alaaj bi ma nekkoon mooy affaire dose yi yow it koy yàq bàyyi noonu rek bàyyi nu déggal kii naan ma ay wóorul wóorul noppil doo noppil wóorul wóorul noppil waa léegi mu ñëpp noppee nu muy deme réew mi ko doonu ci bàyyam ay waay réew mi yàlla na yàlla doon jàmm ci réew